waaw xam nga mbirum Pakistan ñu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa di ci sant état Sénégal mais di ci sant banque mondiale di ci remercier aussi banque africaine de développement yi nga xam ne ñoo composé xaalis bu bëree bëri pour appuyer ko collectivité locale yi nga xam ne xëy na càmbar nañ leen ba seenu doxeen ci set seen loxo seet ba nga yaa bañ yaakaar ne ñii lépp lu dem ci ñoom dana dem ci seen askan bul nanguwul a investir ci ci ci fonctionnement lépp ci investissement la donc loolu aussi lu am solo la parce que danaa ne permettre ñu am ay infrastructures publiques yu bëree bari yoo xam ne askan wi danañ ko mën a bénéficier ci dëgg la li nga wax sécurité ku wax rek tudd na ko ku wax tudd na ko ba tax na euh, ñu ngi koy dund xam nañ li population bi soxla moo tax bi may ubbi sama wax loolu laa ko ubbee ci contrôle sous-préfet ci contrôle gendarmerie mi ngi fi ak police ñu xamal leen ne leen sécurité bi ñu ngi ci nañu ci jéem a dolli renforcer ko suñu kem kattan ndax actuellement ku nekk dégg na Touba problème yi bari na dégâts yi bari na fu nekk koñ bu nekk chaque jour chaque nuit nga dégg problème bu xew donc wala attaque yu ñu def loolu aussi fekk na dem démb waxtaan nañ ci ak sous-préfet mu pour mu convoquer benn réunion sécurité publique boo xam ne day woo police ak gendarmerie ak commune ñu bokk ci toog waxtaan ñu xool ñoom nan la ñuy def ba nga xam ne danañu mën a liggéey euh, def communaux maanaam liggéey ñoom ñaar ci point sensible yi nga xam ne identifié nañ ko ci dëkk bi te li ëpp ci dégâts yi fa lay xewe pour ñu mën a sécuriser population bi ci loolu. waaw xam nga Touba loolu mooy problème bi wax naa ko. Touba actuellement waruñu wax ay budget de 4 euh, milliards di collecté ñaan am nañ 1 milliard 1 milliard 400 millions 2 millions 2 milliards. donc euh, li normalement budget commune bi bu fekkoon ne li ñuy fayoo ci yeneen wiil yi la ñuy fay budget mi ngi ci 7 à 8 milliards yoo xam ne bu ñu ko defee parce que jëlal exemple màggalu Touba rek. lu mu néew néew néew am na trois cent jaaykat yu ñëw trois cent mille jaaykat yu ñëw di jaay si mais imaginel ba benn benn place ci àddina buy jaay ci dëkk boo xam ne commune bi dana ci am un franc amul te trois cent mille képp trois cent mille ta euh, jaaykat yoo xam ne kenn ko ne fay na benn vingt mille franc rek sa sa c'est six milliards lay doon loolu suñu ko defoon chaque année ñaari at ñett at mu nekk bu fekkoon ne commune bi mi ngi collecté ci daal màggal ci secteur boobu 6 milliards di def bu impôt fisc euh, locaux bi nga xam ne nii war nañ ko fay bu ñu ko doon fay lu mu néew néew dana rapporter un milliard un milliard deux cent millions par année ça fait ñaar yooyu rek c'est sept milliards donc te ñaar yooyu commune bi presque mën naa ne du ci collecter cent millions wala cent dix millions par donc loolu moo tax nag ñu doon sensibiliser euh, conseil municipal bi toog dañ ci waxtaan di ci sensibiliser chef de village ak population bi wane ne war nañu mën a tër tëgg waxtaan ak kilifa yi nga xam ne parce que nag dafay concerné ay kilifa yoo xam ne day euh, il faut ñu waxtaan ak ñoom ñu def ay commission wala am ndigal dem ci ñoom waxtaan ak ñoom xamante leen ne leen kat dafa am luy war commune bi dafa am lu population bi soxla te droit yi dafa bokk ci li nga xam ne nii dafa dañu koy dañ ciy jëlee dara pour man koo def ay infrastructure yoo xam ne nii askan wi danañ ko mën a bénéficier ndax état mi ngi fiy def li man mi ngi mi ngi góorgóorlu mi ngi fii indi ay godron mi ngi nii màggal gi bi mu jàllee dégg ngeen lee ministère de l'intérieur wax am na ñaari problème yu fi xew muy ñaari ndox ndox mi taa pour taw bi muy eau pluviale bi ak eau évacuation bi eau usée bi ñaari yooyu yëpp président jël na ci ay matuwaay yu wër-wër ndax bi màggal gi jàllee 15 jours rek yónnee na fi ay kenn ku ci nekk ministère concerné ba saisir na la nga indi fi sa sa sa équipe technique nga ñëw fii di def étude ànd ko ak commune bi. comme que nag ndimbal na ci fekk looxal borom banque africaine de développement ak état Sénégal ak bar euh, ak euh, banque mondiale euh, PACASEN bi génne nañ jox nañ ñu neuf milliards pour loolu état bi mi ngi def effort yi il faut que aussi ndimbal na ci fekk loxol borom yoo góor dëkk bi aussi ñu góor góorlu ba liñ war a am ci ci ci ci recette bi ñu am ko boole ko mën koo liggéey muy loo xam ne ni dana jëriñ askan wi. waaw ah, mais xam nga dëkk bi dafa xaw a sensible te li ëpp ci këri commercial yi këri kilifa lañ yoo xam ne kenn benn taalibe mënul jóg dem ne leen lii ak lii ngeen di def liñ man rek mooy di waxtaan ak ñoom di wax li nga xam ne moo xew ba ak di jël kenn ñenn ci ñi nga xam ne am na 19 19 mbàkke mbàkke ñu ngi ci commune bi nekk ay conseillers di jël ay nit di leen sensibiliser yóbbu leen ci ñoom ñu waxtaan ak ñoom sensibiliser leen wax leen contraintes yi ñuy dund ak fi àdduna bi toll ak li nga xam ne mooy wàllu commune ak li nga xam ne nii ku nekk ci commune te ku installé lu toll noonu wala ku investir lu toll noonu am nga commune bi am nga du ameel nga askan wi loo xam ne nii seen àq la war nga ko yëkkati jox leen ko ñu jox ko askan wi ñu sensibiliser leen ci sensibiliser leen ci côté boobu ba convaincre leen wala ñu sensibiliser leen ba convaincre leen foofu lañ ci mën a yem dafa am fu ñu ci mën a yem ñu ngi ci nag di ko di ko wax parce que nit su fekkee ne am na lu ko war nga munoo ko munoo ko forcer. da ngay man di maslaa ak moom di ko wax ne ko lii ak lii ak lii ma war a am lii ak lii ak lii ma war a am peut-être ba yoon ne obligatoire ku def lii da nga def lii wala moom ci boppam mu am mu am yëg-yëg ne ah gannaaw lii kat loi la boo xam ne ku ku toll fii ma toll wala ku def lii ma def tegu na ci sa kaw war naa ko teg ci sama kaw comme ni ko citoyen def loolu mooy li ma la wax dama ne la centre commercial yi majeure partie centre commerciale yi ay këri kilifa lañ xam ne maanaam kenn mënul leen a am na loo xam ne ñun en tant que talibé en tant que citoyen mënu ko ci ñoom donc liñ man rek mooy di wax di jéem ci suñu talibé ak di wax li nga xam ne moo war a am donc loolu lañ ci mën a def